mbokki kon yena ko gissando ni grève bi nga xam ni transporteur yi xey nañ ko entamé commencé di am ay conséquences yu doy war ci élèves yi fi ci euh, rond point bi nek ci Touba élèves yi ñongi ni wara dem mbacké gis ngeen presque ils sont des centaines di xaar auto ni du mbacké Touba du ben auto bo ni wala tata yi ñu ngi leen daan yobbu tay gis ñu leen motax nak gis nga il est presque 8h ñom ñongi ni tay am ay jafe-jafe mu nek nak lo xam ni day war non seulement day impacter éducation bi mais dina impacter ñeneen ñi nga xamné itam ñu ngi dem doxi seeni soxla mo xam ne jëm marché mo xam ne jëm hôpital mais nak ñi nga xamné ne ñoo di élèves yi ñoo ci gëna victime kon li nak nek na lo xamné ni vraiment c'est déplorable mu nek mbir mo xamné ni bu jafé jafé amé entre les transporteurs ak peut-être état bi euh impact bi day dal di laal ñi nga xamné ni nii ñoo di élèves yi non seulement ñom durant l'année dañuy am ay jafé jafé jëm ci transport